rek ak contentement rek euh, di ñëwaat ak yéen ci émission Asmin Sport mais Asmin Sport nag tey nag c'est spécial parce que tey maa ngi mbuur fii ci buntu kër euh, Grand Gassiam Ndiaye waaw ñu war fi defee benn sargal boo xam ne tey jii nii ñu ngi koy defal l'international Diène Faye ñan ñoo koy defal sargal boobu ay xaritam ay doomu ndayam mun nañ wax ni bi muy ànd ak xale muy ànd xaritam yi boobu ay xale yu ndaw lañ woon ñoom màggandoo dem ba nekk ay kilifa tey jii nii ñooñu ëlbatiku di ko sargal kon loolu lu rëy la kon nag loolu mbégte la waaw foofu laay laay ñëw ci yéen ci Asmoon TV revivificateur des valeurs di leen wax nag kiñ koy defal mooy Diène Faye kan mooy Diène fay jën fay mooy ancien international ancien joueur de la douane ancien international sénégalais mun nañ wax ni def na ay jaloor yu mag a mag a mag fii ci Sénégal ba jóge fii dem bitim réew mën nañ wax ni Diène fay jaar na Arabie Saoudite jaar na Qatar jaar na Dubaï jaar na France jaar na Maroc kon mën nañ wax ni du ndaw la ñuy sargal tey nit ku baax nit ku tabe nit ku social nit ku mën a dimbali doomu aadama mën nañ wax ni say suñ ko doon wax ci ñi mu jàppale tey jii nii duñ mën a jeexal euh, ay teraanga yi nga xam ne def na ko ci ay mbokkam ay xaritam ay àndandoomam mën nañ wax ni daal Diène Faye nekk na nit koo xam ne tey jii sax yoruma kàddu yi sax pour mën ko génnee parce que dafa nekk loo xam ne dama ko dund ak moom gis ko mu koy def du luñ ma nettali parce que mën naa wax ni ku jàppale ay xaritam na ndax ay waajuram ak ay mbokkam nekk nañ Arabie Saoudite muy def teraanga nekk nañ Arabie Saoudite ma gis ko muy indi ay xaritam di indi ay mbokkam di leen wutal ay liggéey kon fay Faye gàcce ngaalaama rek lañ koy wax bis bi mënut a ñàkk moo tax comme li may wax rek sur Asmoon TV encore une fois revivificateur des valeurs damay ànd ak yéen rek dugg ci biir jël ay témoignages tuuti rek ci ay xaritam ak ci ay doomu ndeyam acca ñu dem moor waaw di am mbégte rek contentement rek tey dañuy sargal Diène Faye boo leen xoolee ñii ñëpp ay xaritam lañ ay doomu ndayam lañ mu am fu rëy foo xam ne mun nañ wax ne jaar na ko fa ñoom mais ba tey rek li ma lay wax fa ma wut si moom palma rek Serigne da nga def ma ngi lay ziar. da la ziar bu baax tur bi. Eh, Souleymane Ndiaye. Ndiaye def di sawarang, wa lu wara sawarang bobu euh sawarang bi moy dama doon joge village di ñew fi di football sama xarit yi. def ak ñom ay at at. wa tour bobu nak ma nekkon ko xamante attaquant bu xarañ la won nak bon les comme attaquant la te man man rek maron doon village ñew ñëw tuddé ma touru village bi quoi nan ma sawarang motax ma def sama mayo bi ni sawarang sawarang wa après xamna dinañ ko gis woné ko wa parce que tay dañu gis tay mu nek bëss bu reuy bo xamné ñu koy defal Diène Fay ma bëggon rek nga sanni ci cadre rek loo ma wax ci Diène Fay rek ci lu gatt rek wa luma la mëna wax ci Diène Fay Diène Fay nit ku baax la nit ku généreux la nit ku bëgg nit la nit ko xamante fu lepp lo def ci mbiru sport foko wo mu uyu ci la jeun fay mun na wax ci bobu lu bari bëri Diène Faye ñoo football doon nawatan, ñu bokkoon ben club ñu nan naan nan CTN guy gi la joggé dem stade de Mbour bu joggé stade Mbour ñu demandoo stade Mbour maa ngi ñoom ak Papis Papis mi euh yalla def mom mu joggé fa dem douane kon jeun yag nañu ak mom nit ku généreux la nit ku bax la. nekk ak ñun suñu groupe bi tamit lu tànkam lu dara lépp loo woote da ciy jiitu quoi wax dëgg fa yàlla waaw jën moom lépp lu la nit wax si moom te nekkul ne nit ku baax la ah nit ku baax la daal waaw loolu daal lañ mën a témoin ci boobu hmm. waaw. loolu wax ji rafet na lii moom dafa mën rek rafet rek lay def parce que maa ngi fi damay xool rek su ma mënee am ñaari nit fii rek waaw mënee am ñaar rek ci lu gàtt waaw kay Neymar may kay kay kañ la jógee kañ France kañ la jógee France day na Neymar waaw ñu ngi ziar sama sëriñ tur bi. Amadou Gueye HLM 3. Eh, Amadou waaw mais te waaw kii bi moo tax <laughs> wax nga dëgg na ngay tey waaw sa sa ngay tey pourtant keroog rek maa tey ñu ñaan ñu ñaanal suñu équipe bi tey ah. tey tey HLM waaw parce que waaw tey ñu gagné ah. pour yéeg quoi. <laughs> ngi ñëw rek parce que maa ngi la gis tey fii Mbour tey jii nii ci bisu Diène Faye bi ma bëggoon rek nga sànni ci kàddu ci Diène. waaw waaw waaw bisu Diène Faye bi vraiment. vraiment le bord boo xamante ni kuñ koy defal nit bord boo xamante ni bu mon man euh, fii laa ko xamee fii laa ko fonctionnaire laa ñu affecté ma biir Mbour mais bu ñu ma accueillir mon bokk na si ma accueillir donc kuy wane ni des ouvertures et ensuite aussi euh, Sénégal bi aussi def na fi loo xamante wax football Sénégal bokk na aussi ñoo xamante vraiment contribué na ci mu jëm kanam quoi Mbour aussi tamit lu baax rek la fii def lu baax la ñu wax si moom xale yi ku mu ci gis jëm la encadré jëm sotti xam-xamam bi mu am vraiment mérité na lii nga xamante ne jour la boo xamante ni kii mérité na ma déplacé wu ba Dakar ñëw keneen ak keneen def loolu quoi nit bu baax la ñu koy ñaanal daal yàlla koy sunu borom fay lépp li nga xamante ni def na ko ci xale yi fii ñu màgg ba nga xamante ni Mbour sur le plan national aussi tamit muy njëriñu Sénégal <laughs> jërëjëf Amadou kontaan nañ ci yow jël naa fi jël naa fi ñaar mais non non mais terrain ba dinañ am foofu dañuy ñëw terrain tax moo ñëw dugg jëm ci grand ges waaw comme comme comme d'habitude rek waaw taxal ma ñëw ci grand bi rek comme ñu ngi fii rek waaw ci euh, jour bi nga xam ne dañuy sargal Diène waaw maa ngi fi ak ay ay xaritam ak ay grand frère waaw ci Diène rek la ñuy wax waaw ma bëggoon rek nga wax ci benn une minute wax ma ci Diène Faye jeune Faye ku baax la sama rakk la ñoo fuwandoo bokk même génération mais ku baax la ku généreux la mais sportif nag amul age ñëpp morom lañ loolu nag moo ñu andi fi tey waa Douane les anciens footballeurs de Mbour les anciens footballeurs de Douane ñun ñëpp ñoo tey ñëw fii mais kon loolu moom war mérite bi boo xam ne am na ko mais yàlla na ko yàlla lafal cat dafa ko mboolem jullit vraiment loolu laay wax si Diène c'est l'ancien footballeur la amin tur bi bi nag waaw mais c'est Mamadou Faye ñu koy oowee Jinne ah Jinne ah dafa ko doon moo tax ñu koy oowee Jinne Jinne ah d'accord mais kon yow yaa ma daa ko dugal bi non maa la daa ko dugal bi <laughs> kon d'accord te rek comme ni ñu koy waxee rek euh, les amis du calcio ni nga xam ni tey jii nii ay amis d'enfance wu Diène Faye lañ waaw comme waaw comme li ñu wax rek comme li ñuy waxee noonu rek li ñuy wax ci mbaaxam gis nañ ko Arabie Saoudite même nit ñi nga xam ne dañu jëkk mbuur ñëw fa bu ñu ñëwee tamit teraanga rek la seq ak ñoom muy nit ku baax mais tey nag dama taxawal xoolal maa ngi taxaw nag icône ci football Sénégal ñu koy wax grand Ngesiam Ndiaye du ma ne sax Sénégal mais Afrique laay wax Ngesiam maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar Asma Moon waaw di am mbégte rek ñëw tey fii nag ci sa sargal bi nga xam ne moom la ñuy def euh, defal Diène Faye mu nekk lu rëy yow day defe naa yaa ci gën a jekk pour wax ci Diène Faye waaw Diène moom non Euh, dans le pays du golfe à Abu Dhabi il nañ deux ans trois ans mais ce que euh, les c'est que je vraiment il période bo xamné des centaines de millions man ont été transit au Sénégal té xam nga loolu wóolu rek mom mokay def alalam ay blessure Sénégal ñoñu rééducation opération en charge amna ñoo jëndal leen bi bi nga indi na ay boy neuf boy mu leen aux Émirats ñu wara jouer ci corpo yi mu compte di verse xaalis ba ba mu mot mu defal leen visa ñoom ñu mu dem Europe xam nga loolu loolu macha allah ku koy def mais kooku borom baax la waaw macha allah vraiment moom moom moom moom borom baax la sama kër la doon lekkee ñoo doon nekk vraiment contrat bu mujj bi nga xam moom la signé man maa lijjanti fekk moom mu jeexal man leen gars yi man a cheikh bi dama ngeen jëli jël mu ne ma jël ma ne ko demal nga jëli ko mu ne ma ñaata war a laaj ma ne ko ah. deux cent mille dollars boo ko joxee à la signature dina baax. mu ne moi ma ne ko deux cent vingt mille dollars. ñu demee moo woo jën ma ne ko jën mu ne ma waaw ma ne ko kaay mu ne ma grand mu ne ma mën ñëwul am na lu feeñ. mais nak dès que contrat bi mu mujjé ñoñu ci clause contrat bi dafa amone euh da nga wara fay légui nak comme waxon 200 000 dollars chérie té yama gëna pas ri ma lay 50 000 dollars gaay nga déssé 150 000 dollars à la signature cash nga am 20 000 dollars par mois mais bu jotté xaalisam jox na mu 10 000 dollars ma bañ bañ mu jox mu 10 dollars té 7 millions 500 000 man tamit ma jëlaat waa Abu Dhabi yëpp ku nekk mekiti yëkkati cent mille jox la Diène bay moo may lii. macha allah muy xale bu baax moo ak macha allah moom it Albouri bi muy dem dem Qatar euh, dem euh, Oman euh, non Qatar waaw xam nga Qatar joué naa fa. maa fa njëkk a joué comme sénégalais moom bi mu signé contrat il a donné vingt sénégalais ku nekk cent cinquante mille Albouri. te moo ak Fay Faye benn lañ. macha allah étudiants yi jooyu ñu dara jooyu ñu dara baaxaayam vraiment kuko vraiment da nga iñane té mbour mom vedette bu fi footballeur bu fi exemple ngay parce que boudé investissement moko fi njëkk def woné yoon bi comprendre Dakar yeen ñi la yeen ak ñu euh, euh, euh, Moussa Badiane yéen tamit yéen war na leen di sargal comme ni ñu ko defalee macha allah vraiment di ko ñaanal yàlla taxawu ko taxawu njabootam ci barke alxuraanu karim macha allah macha allah lu rëy la kontaan nañ trop quoi ci seede yi nga def wax dëgg yàlla ku ñàkk ki ñaan rek mooy def lii waaye noonu nga mën a mel yow moom bu ñu waxee xam naa moom sa sargal moom bu ñu ko waxee ngesiyaam borom jumaa yi ngesiyaam borom euh, teen yi ngesiyaam ak li nga yëpp yooyu yëpp xam nañ ko xam naa ni waxoo ma ko mais yëg naa loolu lépp moo tax dama ko denc maanaam yow sa bas la mais da nga may dawloo nag temps yëpp pour ñu def kii boobu mais lool kañ waa kañ moo ko jox waaw non moo boole la moom joxal gars yi rek bu gars yi paree rek ah. man mu mujj incha allah ah, <laughs> ah la ah ñoom Moussa Badiane ak grand laay laay laay laay moom laay technicien foog nga jël ko d'accord incha allah Euh, boo yu bari moo leen formé waaw moom bu ñu maasewul moo mag tuuti mais ku baax la yow tamit ku baax nga ñu lay ñaanal yàlla yàlla taxawul la ba nga sori sori Qatar moom ñu la fay xaar moom dëgg nga Qatar joué nga joué nga nga fu yow da nga tey sa gi di nga xam ne tey un grand làqu di duñu làqu yow yow la ñu war a defal nag sargal inshallah ñu la defaree ba pare mooy ñëw waaw comme lii dafa dafa dafa rafet parce que jii nii waaw nii ah, mi ngi nii sax ki ñuy wax a ngi nii muy muy Diène Faye waaw waaw tey jii nii parce que tey mën nañ wax ni ah, yaram daw na ndax ah, seede yi ma dégg wax dëgg yàlla nit ku baax rek mooy def loolu ngaa laa ma lan lay wax dañu ñaan rek yàlla sunu borom teg la loxo yàlla musal la cat waaw loolu moom incha allah sunu borom dañ ko def parce que am nañ ci njort gu rafet parce que nit bu naan bu baaxee mboq ya parce que man dama gis Mor ki ma taxawal nii dama taxaw nit ku baax nit ku xam lu ko war nit ku social nit ku mën a dimbale doomu aadama gàcce ma lan lay wax. allo waaw comme ni leen koy waxee rek chaque jour rek ñu ngi ci ci sargal Diène Faye mi ngi ci kër ngees mu bëgg na ñëw gis madame Ndiaye alors na ngeen def. ana ana ana Yacine mi ngi nii sax taxaw salaamaaleykum ñu ngi def waa Yacine noonu foo mu mu nuyu la waa gis nga de. gars yi di gars yi añ na man dama lay fekk dama lay bett. waaw ah, <laughs> waaw ah, nii non baax na nii baax na <laughs> baax na ñëwal rek ñi gis nga ko de gis nga ni muy ni sonne ci càmm moom mu ngi ci waañ bi daanaka madame Ndiaye maa ngi lay ziar gis nañ gis nañ gis nañ toppatoo bi <laughs> di la sant di nuyu ñi fi nekk ñëpp jën nag man mënuma wax ci moom sama xarit la macha allah wax dëgg yàlla dem moom tax est-ce que du moo tax ma intégré anciens joueurs yi di gërëm ñëpp nag di gërëm surtout yow macha allah gis naa ni ngay def si sama borom kër di la gërëm lu bëree bëri toujours mu wax ma sa mbaax macha allah mais jën moom man mënuma wax ci moom ak ñoom ñëpp franchement mais munuma wax ci moom. waaw ba tey rek comme li mu wax rek waaw xam nga rek moom xam naa émotion moo koy jàpp parce que xam na ni jën càmminam la càmmiñam ñu baax la munul xam nga fi mu nekk nii looloo ko téye mais ñu sañoon rek nga wax ci benn rek benn mbaaxu jën parce que xam nañu jën euh, li muy def ci mbaax bëri na. dëgg la waaw waaw mais li ma gën a neex ci moom ak mooy social. ba pare simplicité am jën bi muy am ñëpp la bokkal franchement boo gisee ku mu àndal sax da ngay moom nga koy teg moom ngay foog jën que moom ndax ni mu meloon lu mu am bokk na ko ñëpp waxuma mbokkam yi sax lu mu am bokk na ko ak waa Mbuur moo tax dañ koy ñaanal gudd fan ak wér mu dund ba doomam di ko fay wala ñi mu dimbale seen doom yi di ko fay franchement Mbuur moom

la ñuy defee reportage bi parce que borom bés bi moo toll noonu ñu ngi nag ci appartement bi nga xam ni maanaam sax pas appartement sax ci kaw étage bi fi nga xam ni tey jii ni la dal ay copains am ak les yi nga xam ni moom la àndandool doon jouer douane ak ñi nga xam ni tamit ñoo bokkoon championnat bi di jouer muy les autres internationaux yi nga xam ni muy ñoom Victor Diagne ñi ngi fi ay ay Alimal ñi ngi fi di njaay mi ngi fi ñoom Sall Fall Moussa kamara ñoom ñëpp ñi ngi fi waaw ba ak sama waaji ndaanaan bi ñew rek waaw parce que ma ngi fi ak benn doomu ndayam ñu koy wax Modou ndjay mi ngi ni Modou ma ngi lay ziar. waaw ah, da na ziar. waaw ñu am mbégte rek tay ni muy sa bisu doomu ndey sa xarit di jeen fay ñukoy sargal mo ne won rek xamna ni mëno ci baña wax. ah waaw waaw waaw waaw sama doom waaw suñu doomu ndey la. waaw suñu doomu ndey rek. waaw ndey waaw ku baax la ku baax ku baax yag ñu ñu ci yag depuis ba ñu commencé championnat di football championnat Sénégal ba léegi dara ñaaw fa ñooy ànd tous les jours bu nekkee Dakar sama kër la ne bu ma ñëwee fii kër laay ne waaw ñun ñëpp daal loolu daal comme ni ñu koy wax rek ñaanal ko yàlla rek li mu séntu tey ci bés bi yàlla na ko yàlla may quoi. waaw tamit parce que lii ngay wax nii wax na ko moom lañ njëkk a jël mu wax nii am na ay kër dakaar mais saa yu demee Dakar sa kër lay dal parce que ni nga ko xajalee. bëggoo mu dem feneen bu demee feneen sax nga mere ko mais entente boobu yéen ñaar lu waral loolu jën Modou Ndiaye. waaw entente boobu xam nga comme ni ñu mel comme ñeneen copains yi rek xam nga affaire yi bëri nañ gaa yi gaa yi bëri nañ. xam lu wax. sama copain yaa ngi fii am naa yeneen copain yoo xam bu ñëwee tamit bu Dakar tamit sama kër nañuy ne mais maa moom dañu am benn complicité yàgg na. dañuy doog a dañuy doog a xamante ni bokk équipe nationale bi. ci depuis boobu ba léegi moom nice quoi mais mag sama yeneen gars yi yow yaa ngi nii waaw abaa ngi nii gars yi sama gay mom ñun la say kon dama yegg ci aba wa ma ngi ci aba kon taxal mo ñew ci aba coach support autonome de dakar borom tactique yu bari mi ngi non mais duma may jamm nak dema bay suma suma toggé sama mafia nga tras ko yak ko lol ngay ba yaa gëna tactique fu no yow mom fokk ñu lay fokk ñu lay tojal parce que da nga xaw say say avant sand racer mais sant yalla rek li mom xam nga dafa neex bon retrouvaille la xàmmewuñu fii jaraaf la nekk wala gia la nekk wala feneen c'est que Diène aussi moo baax rek donc euh, man Douane nañu xamante euh, ba pare joué nañu nañu équipe nationale bokk sélection ba pare aussi ñu tasewaat Arabie Saoudite donc mu nekk euh, ma nekk Médine moom mu nekk capitale ba donc euh, mais dañ doon souvent donc euh, mu nit aussi ku social solidaire donc euh, vraiment lii moom mérite le quoi lii moom mérité parce que jëf la moom moo jëf moom donc donc donc aussi donc ba pare nitu dëgg la jéen xamul caaxaan donc bu gisee dëgg moom da koy wax bu gisee loo xam ni du dëgg aussi danaa li ngeen def nii amul waaw Salman Faye la. waaw surtout voilà la moom daal man man loolu tax ma gën ko fonk. waaw parce que nitu dëgg la parce que sunu sunu milieu bi dafa dafa xaw a doy waar donc boo gisee nit ku mel nii comme Diène nga xam dafa dëggu donc dangay mën a nekka moom voilà. kontaan nañ ci yow. hivernal bi kañ la. xam naa euh, début août incha allah ma ma dina dinaa la indil benn attaquant bu baax. incha allah. <laughs> problème dañuy ñëw rek comme li may wax rek dem ci le directeur l'ancien euh, maanaam euh, adjoint euh, Bruno Metsu non loolu ma dagg ko xaw ma woon kan la waaw maa ngi ñëw ci président ci Abdoulaye Sarr ma ñëw ci moom rek. waaw ñu ngi ziar DT maa lay nuyu di la ziar Abdoulaye Sarr. bu baax. ñu ngi am mbégte lool bi ñu la gisee sa teewaay fii ci bisu Diène fay bi ah, ñu bëggoon rek nga sànni ci kàddu ci Diène fay waa jërëjëf di rafetlu d'abord jataay bi parce que ñu ma gëj a gis laa fi gis loolu di dëgëral rekk li ma xalaat ci sport nee nañu sport boo ci mënul am xarit daal bu yeboo nga bàyyi ko ndax ay valeur yu mag le sport di jox doomu aadama bon ànd bi rafet na tey bi ma gisee lii Diène fay dëkk Mbour dafa may fàttali lu bari ndax ñi fi toog yëpp dëkkuñu mbuur bon lii yëpp sport ko moom jéen nag damay wax ci nit ki balaa maa wax ci footballkat bi ndax nitu dëgg la bu ma nee nitu dëgg la jéen dama ko yor mu doon footballeur ma koy entraîné mu doon tout tànk boobu àggagul sax ci équipe bu mag bi bon dañu yàgg mais li ma jëkk a nemmeeku ci nit ki mooy kuy sàmm kàddoom la te loolu mooy rafetal ànd moo koy dëgëral bon jéen bu mu changé na continuer ci loolu ku bëgg a njaboot la tamit ku bëgg bokk la te yooyu yi ñu jàngal la ci sunu cosaan ak sunu aada bésam bi yàlla daf ma ci boole tey invité nañ ma mais li ma gën a indi mooy nitu jën fay ndax yàgg na li may wax ëpp na fanweeri at mosuñu bàyyante dañuy nemmeekunte di seetante bon tey bu amee bés bu mel nii ñu jaaree la ko ci wàllu football man ma commencé si nit ki mooy jéen ku ma roywaay la euh, am na fula am na fayda te loolu nag laa daan gis si moom ci terrain bi kàddu boo ko ne waxtu bii la ñuy entraîné moo fay jiitu te ñi fay mujj ci la ci lay bokk musul fooy liggéeyam bon bu amee lu mel nii tey nga xool jaar-jaaram nga xam ne mérité na ko di ko ñaanal yàlla nag ak ñi fi daje ñëpp képp ku fi am soxlo yàlla na ko yàlla faj ku fi àndi tamit jafe-jafe si wàllu wér yaram yàlla na ko yàlla saafara borom kër gi ñu te eh, dalal tey ngees yaam tamit yàlla na ko yàlla gën a suturaal di rafetlu rek kontante daal moo tax bon jéen ñu ngi koy ñaanal yàlla xale yi fi taxaw yëpp parce que nekkuma woon mais entraîné naa ci bari ci équipe nationale. parce que question boobu sax laa doon ñëw parce que boobu laa ko doon tëjee parce tey loolu sax laa bëggoon parce que boo xoolee tey jii nii xam ne fii am na benn crème bi fu nekk boo xam ne la majeure partie entraîné nga leen tey bi nga leen gisaatee lan nga yëg. Euh, fàttalu lu ko fàttalu lu bari rek xam nga góor gi sur moo doon wax yaram daw tey loolu lay niru ndax ñu bari fii dama leen yor ci équipe nationale yi ñuy dem fu sori ci àddina. nekk ci nekk bu rafet moo tax tey dama féex xol bi rafet xol bi dal ndax gis nga bu ñaawoon xëy na kersa dina fi am mais kersa amu fi ndax lu rafet rek la ñu mës a jëflante bon lu ñuy jëf rek yàlla na rafet bon tey kontaan naa parce que ñi ma fi gis ñenn yi dama bokk ak ñoom ñuy entraîner équipe nationale ñenn ñi man maa leen entraîné biir équipe nationale bon bu ma gisee tey Moussa yor jataay bi di kaf jaaxaluma parce que nii la mel bon changé wul bon yàlla nañ yàlla defal sutura ànd bi yàlla na yàgg te ànd ak wér ànd bi yàlla na yàgg te ànd ak sutura ànd bi yàlla na yàgg te ànd ak vraiment ay xéwal yu bari jaajëf jërëjëf kontaan nañ ci yow. problème boo ma def ñaan rek boo defal ñaan rek. waaw Fatiha salaatul Fatiha ak juróom-ñeent yoon yàlla fi. awuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siraatal mustaqiim siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa laddallin allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين waxee rek euh, les amis du calcio muy ni nga xam ni tey jii nii ay amis d'enfance u Diène Faye la ñu am ci mbégte nag ak contentement ñëw fii nag ci Mbour AIFS yebal ma mooy euh, Asmoon TV revivificateur des valeurs maanaam di wax lu rafet ak di wane ju rafet rek looloo ko tax a jug ñu ñëw nag ci ci bisu Diène fay bi ñu koy sargal ma toog ak taxaw nag ñi nga xam ne ñooy sargal Diène fay muy ay amis d'enfance am ma taxaw si à ma droite man ak Naar ak Lamine ak ñeneen ñi damay bàyyi sax Naar présenté gars yi parce que beneen micro bi mu ngi ci mi ngi ci. mbaytin mbaytin waaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte di def ak yéen émission bi tey sargal euh, Diène Faye. merci Asmamoun donc vraiment ñu ngi euh, kontaan bu baax ci seen teewaay ci suñu bës bi. parce que bés bi moom wax dëgg yalla bésu wa Mbour la bésu wa région de Thiès la bésu Sénégal yépp la. donc vraiment encore une fois ñu ngi leen di remercier ci sen déplacement. donc ma jéem ma def présentation association bi. Mhm. association bi nag euh, bi mu juddoo ak légui Je na yag na parce que nous dalé and ak ça fait plus de 40 ans mais association bi bi ko fondé ak légui amna ay ñetti at daal ci lay toll ci lay euh, ci lay ci lay wara tollu mhm. euh suñu président. Mhm. man maay coordonnateur bi. Mhm. Mamadou Lamine Faye mom moy euh, le trésorier. y a Pape qui est là. y a Pape qui est là derrière mom aussi il est membre. Qui c'est Nar Niang il est membre. Qui c'est Bougouma Niang Qui c'est Tala Ndiaye Qui c'est Issa Diom derrière c'est Pape Diop. Qui c'est Cheikh Bakhoum Qui c'est Djibi c'est? Djibi c'est? moom moo si gën ndaw moo si gën a ah. <laughs> euh, ça c'est pas Malick Diouf <laughs> et là c'est Omar Niang ah, ah. donc ñun ñooy ñi nga xamante Nous ñun ñooy euh, les amis d'enfance de de Djien Faye ñun ñoo doon jiyandoo depuis à l'âge de huit 10 ans. waaw ah, ah. ah, depuis boobu léegi ñoo euh, association bi ni mu les amis du calcio. les amis du calcio lu waral les amis du calcio. voilà les amis du calcio calcio moy euh, ben terrain boo xamante ni foofu lañ doon huh donc euh, ay match yo xamante match yu metté metti lañ fa doon jouer. Mhm. finalement ñu né fi dal mom moy calcio bi. calcio mhm. comme série A. Mhm. parce que match non c'était tellement c'était tellement des matchs difficiles yo xamante Mhm. franchement mënu ma mesurer intensité mhm. match yi ñu fa doon jouer loolu mo taxone ñu dem ba ba tuddé ko le calcio ah donc ñun ñi nga xamante ni ñoon ñoo nekkoon euh, xalé yi fa jouer ñu ñoo ah. formé association bi tuddé ko ah. les amis du calcio waaw waaw limu wax wax ji rafet na gis nañ présentation bi parce que les amis du calcio comme ni nga ko waxee rek xana fofu xamna les euh, les amis du calcio bari ngeen ci ay professionnel wala jéen rek ngeen ci am bon euh, malheureusement jéen fay kese lañ ci am comme professionnel <laughs> ñeneen ñi si des ñëpp ah. franchement mun <laughs> euh, pratiquement ñun daal li ñu moon ci football bi. waaw ah. suñuy qualité bëriwul woon. Ah, dëgg la ay gladiateur daal moo ci ëppoon quoi. Ah. <laughs> <laughs> dëgg la dëgg la waa mbégte rek la contentement. parce que gis nañ ngeen def loolu di ko sargal. Mhm. moo nag si ci ci loolu lañ jëm sax si sargal boobu ñu bëggoon rek ngeen wax ñu ci lan moo leen poussé ak lan moo indi sargal Diène Faye. waaw euh, sargal Diène Faye vraiment man boo ma ci posé question man xam naa li ma ciy wax sax. Mm-hmm. dina tuuti mais ñeneen ñi liñ ci am liñ ci xam moo ëppoon sax man li ma ci xam parce que Diène

amul dara loo xamante ni mën nañ ko ko defal parce que yàlla xëy na jox ñu benn wërsëg bi pour ñu mën ko di ko jox ay million wala ay milliards. Mhm. ñu ne li gën a rafet daal mooy ñu organiser ko benn sargal. dëgg la euh, dëgg delloo ko njukkal.

maanaam nag dama bëggoon ñu ñëw foofu parce que faw ngeen euh, am na message bi nga xam ne tey jii nii pour man war ngeen ko mën a lancer ci diggante ay xarit yuy ànd maanaam lii tamit dafa rafet parce que gis nañ ay nit yoo xam ne tey ji nii euh, li ngeen li jéen fay am nii sa jafe na am ñoo xam ne bi ñu nekkee ba âge dañuy ànd ba nekk mag ñu dem ba di ko sargal comme ni nga ko wax ci biir wax rek xam naa ni ñàkkul tamit am na ay teraanga peut-être ay yenn yoo xam ne xëy na séq ngeen ko moo tax tey ji nii sargal bi ñëw moo bëggoon nag ngeen gën a xóotal tuuti rek ci xool ci mbaaxum jéen fay rek ci loo xam ne tey jii nii mën ngeen ko seede ci moom ci mu doon def ay lu social daal. waaw jéen moom euh, pratiquement social dafa mel lu naturel ci moom. social moom wax dëgg yàlla lu lu naturel la ci moom parce que mësuloo mësuloo changé ah. mësuloo changé. waaw bi muy commencé doon ndaw di jàng. Uh-huh. man ak moom ñoo defandoo sixième cinquième. Uh-huh. man déjà dama doon wax Nan yéen du doon sax uh-huh. ancien international football. parce que bi ñuy jàng dama doon seetlu bu ñu ko mosoon dàq day dem si terrain basket bi. ma gisoon ay qualité ci moom si basket bi man je me disais que ancien international basket lay doon. dëgg la mais xam nga lu yàlla di dogal si doomu aadama. donc moom mu doon aussi vraiment royuwaay. parce que jéen. hormis ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo ay xaritam. Mhm. waa Mbour waa mhm. région de Thiès. Mhm. koo wax jéen rek mu ne jéen ku baax la jéen ku oyof la. Diène nit la ko xamanteni lu mu am rek bokku hmm. ko ak ay doomu adam deug la du ñi mu xam kese. du ñi nga xamanteni ñom la ko yalla bolal mais Diène ku ñew dis ko soxla rek. Hmm. rek mu faj ko bu ko faju rek du am du am jamm deug la ba ni mu tollu ni ba situation ba instant yi ñu tollu ni deug la bo jogon tay ñew ci Diène ne ko man dama am tel problème. Hmm. mën na jël dépense am jox la ko. deug la parce que li mu doon suñu président taxul may may wax li mu doon sama xarit taxul may wax. mais loo xamanteni yalla daf ko def ci mom donc mu doon lo xamante xamante ni vraiment nit ku nekk war na mën a roy ci moom waxuma footballeur internationaux yi mhm. mais doomu aadama bu nekk war na war na mën a mel ni Diène donc mhm. moom ñun vraiment la si ñun repère la ci ñun vraiment sant yàlla daal bi ñu yàlla boolee ak moom mhm. dëgg la dëgg la dëgg la waaw bu nekkee ma xool waaw bu nekkee dafa am waaw aca ñaañ waaw nañ dem waaw ñu demaale rek benn yoon waaw waaw maa ngi ko doomu ndeyam Lamine Faye ki nga xam ne tey jii nii ku ne Diène Faye na Lamine Faye ku ne Lamine Faye na Diène Faye mën nañ wax ni ñoom ñaan ñëpp ku nekk tuddee na sa morom doom Lamine maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar grand as. Euh, bon di leen wax dal leen jàmm. waaw parce que euh, ñun suñu diggante ak Diène Faye mun nañ cee wax bu ñuy wax fii ba suba du jeex quoi munul jeex parce que yàlla dafa def d'abord ñu nekk ay mbokk Diène boo xoolee man dans ben côté si sama côté papa mam la ci man. bon si côté si côté papa mu nek sama cousin. waaw motax euh, ba paré ñu nek ay xalé yu ndaw di and si je me rappelle depuis biñu am 10 ans ba légui wala moins de 10 ans ba légui ñoy and man ak mom waaw bon euh, pour ma wax si mom vraiment dama siy sawar daal loo ma laaj rek vraiment ma ma tontu la daal waaw jaajëf waaw euh, Diène pratiquement mun naa wax ne euh, Diène boppam rek la ma joxul waaw Diène tudde na ma doom doom boo xam ne man maa ko tuddee sama bopp. dëgg la nekku fi mu nekk Arabie Saoudite ne ma am naa doom demal ngeen ngénte ko ma dem ilimaan bi ne ma nu mu tudd ma ne ko tudde naa ko sama bopp bon maa ko tuddee sama bopp. sama taaw bu góor moom laa ko tuddee lu ne lu ne rek jéen defal na ma ko man sama waa kër dañ may xas ne ma mënoo jënd yére ba tey parce que jéen moo ma doon jëndal yëre depuis bi mu commencé liggéey ba tey lu mu jëndal boppam jëndal ma ko da doon jógee Arabie Saoudite ñëw yëkkati saagu yëre la may jox yàlla xam na ko lu mu sol dañ ko doon niroole man ak moom. moo tax pour wax si moom du yomb daal. dëgg la dëgg la xam naa mais il faut être costaud nag parce que bis bi. du ñàkk nga wax parce que danga jekk ci pour wax ci Diène. waaw waaw mais xam nga euh, Diène. bon comme ni ma la ko waxee léegi nii rek. li ma su may wax si moom du du doy daal. dëgg la su may wax si moom du doy. Diène li mu def social si mbuur man li ma xam loo xam ne du ay mbokkam sax la ko jaaral ah, jéen lu gën a bëri ma jox la benn exemple ay tabaski uh-huh. ay jamono ay tabaski da doon def chaque tabaski mu yónnee ma lu war a mot quatre cent mille wala cinq cent mille ma koy distribuer ay xaru tabaski ay cinquante mille cinquante mille cinquante mille si koñ bi ay pa te daf ma doon jox ay quatre tours rek la ma doon jox. dëgg la su ma joxee ñooñ mu ne ma joxal ñeneen ñu la neex. joxal ñeneen ñu la neex. ma jox ñeneen ñu ma neex bu jeexee ma ne ko jeex na. waaw des fois bu amee ku des mu ne ma jox ko sa bos après naa la jox te bu ma joxaatee li may jox ñeme mu wax ne pour tabaski la ndax daf koy ëpp. waaw jën daal jën daal jën la rek. waaw jën daal jën la rek waaw. waaw nga xam ni. Euh, xol bi mooy wax parce que. waaw ku ne Lamine Faye rek comme ni ma ko waxee woon rek ne Diène Faye nit ku baax nit ku am kóllëre nit ku mën a jàpp xarit waaw loolu comme ni mu ko waxee loolu moom boo ko gisee nga xam ni wax dëgg yàlla nit ku baax rek mooy mooy def loolu jox nit ne la am demal demal demal tuddali ma sama sama doom nga dem ngénte tuddee ko sa bopp te amul coow jugul amul lenn jug kon am na loo xam ne yéen ñaar sunu borom def na ko seen diggante kon loolu lu rafet la waaw mais ba tamit boo gisee tey jii nii ay xaritam yi nga xam ne tey jii nii mooy doon géel booloon na Arabie Saoudite yoo xam ne football moo leen boole. kon war nga xam ni dafa rafet parce que ñoom ñëpp ñu ngi si bésam bi tey. waaw waaw loolu soo xoolee. même yow xaw ma ndax ko wala déet bi ñu si kër ga fële. presque internationaux yëpp jéen moo tax ma xam leen. fu nekk fu internationaux nekk ñoo xam footballoon daan na ñoom Arabie Saoudite fu nekk yóbbu na ma présenté ma leen. ay ñoom Victor Diagne ay ñoom euh, aliment la ñoom ñëpp ñoom Modou Ndiaye boo gisee ma xam leen. c'est grâce à Diène moo tax. fu nekk regroupement bu mu mos a dem yóbbu na ma fa. fu mu mos a dem si Sénégal yóbbu na ma fa. même ba mu nekkee Arabie Saoudite nee na ma bàyyi sa liggéey nga ñëw ñu dem Arabie Saoudite. man dinaa la wutal liggéey. waaw mais man maa hésité ma bañ. parce que nit duñ la jox lépp nga jël lépp. Diène ñu bëri ñu ngi wax naan moo yóbbu kii Europe moo yóbbu kii nangam nangam man la njëkk a proposé ne ma kañ dem ma yóbbu man maay jël sama xaalis teg mais comme que moment bobu man j'étais dans l'armée amoon naa liggéey uh-huh. ma ne ko non grawul bàyyil ma gérer waaw mais taxaw na moo ma wutal passeport wutal ma lepp ñew na ma bobu ge nga ñew ma yobul Deug la waaw motax tax li ci nekk si bëri da bon li si nekk dafa bëri waaw am na loo xam xam nga rek waaw mënu ñu ko wax quoi waaw amna lo loo deug la jéen dafa doon ñew am ay mbokk am ñëpp ñew vacances di ñibi otoom man la ko doon yëkkati dénk ma ko waaw lu ma neex laa siy def jéen jéen dafa doon ñëw vacances capital budget bi muy vacances man la koy dénk dañuy ànd dem banque mu retiré xaalis jël si benn somme li si des yëpp mu dénk ma ko ne teel chaque jour man lay wax ne jox ma lii ma jox yenn saa yi joxuma la parce que da ngay yàq xaalis bon jéen dal, pour dire vrai daal comme ni ma ko waxee rek la dagul jox ma waaw boppam rek la dagul jox ma quoi dëgg la kontaan nañ kontaan nañ ci témoignage def na ma quoi waaw waaw kontaan nañ ci témoignage boobu li mu wax moom wax dëgg yàlla daw na yaram waaw comme ni nga waxee rek ni nga waxee noonu la bëree tamit ay xarit yoo xam ne jàppale na leen bañ dem bitim réew bëri ci waaw du ñàkk sax am na ñi nga xam ne tey jii nii sax war naa leen jot ñoo xam ne tamit ay doomu ndeyam lañ ñoo xam ne tamit ñi ngi Europe muy ñoom mooy Malick Thiandoum waaw di di di Ibu euh, Pa Ibu waaw ñoom ñëpp waaw mi ngi mi ngi Angleterre xaw ma waaw waaw defe naa waaw mi ngi Angleterre moom it sax ja dinañ ko jot xam naa ni du ñàkk tamit dina def témoignage si Diène Faye parce que xarit ci bokk na ci tamit ci xaritu Diène yi kontaan nañ trop kontaan nañ trop nag ci ci ci mbir mi waaw ñu am ci mbégte nag waaw comme ni ñuy wax rek xam nga xam naa ni ñu kii ci rek nga def ci benn benn benn kàddu ndaw rek benn une minute rek waaw une minute sax waaw dëgg la li mu wax yëpp dëgg la Diène moom moom rek doy dëgg la waaw sama jour la dëgg ñem bokkuñu koñ man gàdd galaay rek naar la waaye sama jour lu ma seen depuis bu mu amee bi mu jëlee coupe cadet meilleur jour la nekk sama jour ba keroog bi mu nekk international kon mënuñoo wax lépp ne moom moo tax ba jusqu'à présent ma inclure inclure wu ci groupe bi parce que ci loolu laa ko toppee ba tey fii ma nekk nii bokk ci association ma koy ñaan mooy gudd fan ak wér rek maanaam def na lu nekk moom li mu war a def def na ko ñun kay ñoo xamatul lu ñuy def moo tax ñu ñëw seet organiser lii pour def ko ndax rek rien que pour rendre ko hommage xamal ko ni ñun suñu xool seet na ci kon yàlla na ko yàlla may fan mu gudd ak wér mu dundee njabootam ba li mu bëgg mu am ko yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko def kontaan nañ ci yow boo xawa jërëjëf jërëjëf waaw As salaamaaleykum waaw mais grand kontaan si yow le fait que nga laaj ma si Diène Faye sagal Diène Faye bi ñu koy defal à Mbour euh, sagal jën Faye moom war naa ci mën a wax dara quoi parce que dafa nekk koo xam ne man xam naa ko bu baax on s'est vécu xam nga defe naa ni pas mal équipe yu nga xam ne jaar na fa bokk naa ko moom mu nekk grand bu baax. grand bu laabir grand bu mën a dimbaliwaate et sagal Diène Faye mérité na ko mbuur yëpp ñoo ko waroon sagal xam nga mbuur yëpp ñoo ko waroon sagal grand boobu desalul kenn dara mbuur quartier boo dem kër goo dem bu jàppalewul doom jàppale na papa wala yaay xam nga donc kooku moom ñeme naa wax ci moom quoi parce que nit moom sooy témoin sooy def témoignage si moom danga koy def bi muy dund doo bàyyi ba mu dee xam nga nga koy def ken fay ku bax la te mbur yepp xam nañ ku bax la ken amul fayam xam nga donc euh, sagal biñ koy defal vraiment da ko mérité quoi da ko mérité xam nga tay jeune mbur yepp buñ amé fit nek ci football bi tay ba am ay joueur yo xamné ne ngi équipe nationale c'est grâce à lui xam nga wa deug yalla xam nga amuñu fayam xam nga man surtout man et puis c'est pas du man kessé parce que jeune mu jeune mu dimbali mbur bari na bari na vraiment di ko ñaanal yàlla xam nga yàlla bàyyi ko suñu kanam bu baax a baax a baax a baax ak lu yàgg yàgg yàgg yàlla teg ko loxo teg njabootam loxo donc loolu lañ mën a wax si moom baax moom moom fi baax jeexee moom foofu la commencé xam nga man xam nga ma duma wax kenn euh, yàlla lay nuy te gisuma yàlla waaw duma ko wax kenn baaxaayam laa wax si moom parce que dama ko xam dañoo dañoo dëkk fëpp fëpp lañ dëkk arabie saoudite dubai france lépp xam bok équipe dama ko xam dama ko xam bu baax def ñeme wax ci mom quoi ñeme wax ci Diène fay vraiment di wax ni wax yombul xam nga donc mais xam ni dal grand bu baax la grand bu labir la te alalam du ko bolé ben ben ben ben doomu aadama wax deug yalla man dal la defal ben anecdote rek ma ngi rappelé wu ane ben ane bu ñàkkee Arabie Saoudite ben pa dafa ñëw indi fa ordonnance ordonnance plus de 200 xawma ma ñaata mille wallaay te ordonnance bi dafa expiré mu xool ni ordinance bi dafa expiré te man gis naa ne ordonnance bi dafa expiré mais terewul xaalis bi mu ko waroon jox dind dindiwu ci un franc un franc dindi un franc dañu ci noonu la yëkkatee xaalis bi jox ko kon kooku kenn kënu ko xam nga ñaata jeune la dimbali si affaire football xam nga même bu dul en dehors de football ñaata jeune la dimbali pour ñu génn xam nga kooku as amuñu fayam mbuur amuñu fayam mbuur amuñu fayam sincèrement parler luñ ko defar rek sagal buñ ko defar rek mérité na ko quoi du ko mérité moo tax ñu defal ko mais bu ko mérité wul woon duñ ko defal wax dëgg yàlla parce que ñaata ñaata ñaata jour ñoo nekk mbuur ñaata ñaata jour yu jaar équipe nationale ñoo nekk Mbour sagaluñ kenn xam nga ay Diène Faye moom bu ñu ko sagalee rek da ko mérité quoi du ko mérité quoi waaw loolu laa ne woon dinaa ko def si témoignage si vidéo bi xama pour wan la ni xam nga que ni man tey jii xam nga sama xol dafa dafa dafa dafa dafa sedd parce que tey waroon na maa fekk foofu mais xam nga yitte yi ak liggéey bi moo tax may sinon kon jën fa jaroon na ma jënd bee ñëw fagge fekkee bés bu ñu koy sagalee parce que mbuur lii rek lañ ko deseel mbuur lii rek lañ ko deseel merci beaucoup nekk leen si jàmm ciao bon grand big up di la wax ni jaajëf jàmm bu bare bare bu la dara bu dara tax nga changé waaw ni nga mel continuer noonu rek jaajëf Cheikhou Diété waaw jours joueur di wëlëre ci jën Faye di ancien classe am aussi au niveau du stade de Mbour ah ñuy wax la du ñu def lu rafetlu seen teewaay fii pour mën a def sunu ñu mën a def sunu témoignage ci jën Faye mm-hmm. waaw jën Faye nag moom ku wax sport rek mm-hmm.

pratiquement ñu ci bari ñoom ñu ngi fii tey teew ci bés bi nga xam ne ay doomu ndeyam ñi nga xamante ami d'enfance am ñoo ñëw fii di ko sargal muy nag lu mu mérité et ku ne am na mérit ci loolu waaye moom rawatina moom ñu koy ñaan bésam bi yàlla na sedd guy yàlla na ci dugg bisimilahi rahmaani rahim ñu àggal ci alhamdulilahi rabbil alamin te xam ne ne Sénégal am na yeneen jéen fay yu fi nekk voilà ñu ne aussi ñu leen di remercier ci seen teewaay pour wax na ne message bi dañ ko war a jàllale ba àdduna yëpp di ko yëg te am na yeneen jéen fay yu fi nekk Sénégal yoo xam ne war nañ leen a defal sargal bi parce que mérité nañ ko je vous remercie. kàddu gi rafet na kontaan nañ ci yow ma ñëw ci saawaay waaw damay ñëw saawaay rek <laughs> di ziar. pour bi. yàlla na ko ziar Robes la may woowee. alaaj waaw a ngoog waaw mais xam nga kap gi boo ko wàccee. waaw xam nga ak gëj a gise bi. waaw waaw naa kii waaw ba tey rek. yow moom boo waxul moom ci jéen kenn du wax. waaw waaye nag comme comme jot bee bariwul te ñoo wax lu bari ndax temps bi. dañ koy résumer rek. pour wax ne euh, nit du ko dab nit gënu ko. ku respecté métier bii la ba tey jéen dafa mën a fubal pour pour tawoon ko woon ne ñii danoo liggéey. dañoo respecté fi ñu jaar moo moom ñi mu doon fubal loolu yëpp ba tey dañoo mën a fubal pour te dire que kafuñu fowuñu ci ba tey fowuñu loolu la xale yi war a roy ci ñii jekku taxut a fo waxuma laa ko amagul dara nit ku baax la euh, lu mu am da koy séddoog nit ñi ba mu lekkee màkka waa mbuur yi dem nañ fi màkka am fa problème ñëpp la may xaalis ba tey am na ñu koy laaj te xamuñu kan la xamuñu kuy yéen ba tey xamuñu ko kon kii nit mënu koo fay ci mënoo wax ci moom Yeah. da wax li nga xam rek waaye billaay du jeex. wax rek des na billaay du jeex. nit ku ñëpp gërëm la. day xëy di dimbali nit ñi ba ngoon billaay wallaay man maa ci xam dara man ñu koy yee fajar bi ñu yelwaalal nit ci jàkk yi maa ci xam dara macha allah. waaw waaw comme ni nga koy waxee rek ñu ngi ñu ngi ci bis bi rek ba tey ba euh, ci sargal Diène Faye ma taxaw ak euh, magam ñu koy wax kam la Faye muy mag ci Diène Faye bokk moom day ak baay euh, nga gis bis bi tey nga gis ni mbuur gépp génn nañ wax dëgg yàlla tey yaram daw na yaram daw na kontaan naa bu baax waaye nag maa ngi nuyu ñëpp d'abord maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di nuyu ñi nga xam ne ay xaritam lañ initié lii def ko mu am sit bi waaw ndax nit booy ànd ak moom ba mu xalaat li def ko ci yow mënoo ko fay waaw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen sant di wax ne ci kaw ci kanam jéen nag nit la ko xam ne nit ku ñàkk problème la dëgg yàlla waaw nit koo xam ne alalam du ko boole kenn waaw man maa ko yar xam naa ko bu baax lépp maa ko def ci moom maa ko jàpp ci loxo yóbbu mu école dégg nga lépp sama loxo la jaar jabar sax maa ko ko ñaanale jabar sax maa ko yóbbu warigal def lépp waaw mu déggal ma lool bëgg ma lool su ma ko meree sax day day day day am lu ko naqari nga xam ne kooku xëy na am na fu la teg ñu koy ñaanal. yàlla guddal fanam wéral ay cëram li mu def ci doomu aadama yal na ko yàlla fay social na torop social na torop ci ay mbokkam ci jàmbur yi ci ñëpp ñi ñi jéen yóbbu màkka aka bari ñi mu defal teraanga aka bari ñi mu jëndal ay kër bari na lool dégg nga la génnee kër sax mu dégg ko day jënd kër jox la dégg am na yërmande bëgg na lu baax te bëggul ku ko tudd waaw surtout loolu ndax julli tamit noonu lay def ñun daal mënuñoo wax dara dëgg la suñu yaay gaañu na suñu papa gaañu na waaye ba tey lu muy def dina ñëw wax ma dégg nga te loolu rek euh, respect la maa ngi koy ñaanal gudd fan te magam yëpp nag ñoo koy ñaana magam yëpp suñu taawu yaay mi ngi mbuleem ñëwul dafa xaw a feebar mais ñëpp a koy gërëm amul kenn ku ko xarab dara waaw amul kenn ku ko xarab dara waaw bëgg na ñëpp ñëpp bëgg nañ ko nitu jàmm la nitu kese la waaw nitu jàmm la nitu kese la amul benn problème mu àddina ñu ngi koy ñaanal gudd fan nag ak wér waaw di wax ne ci kaw ci kanam li mu def ci famille bi yal na ko doomam defal li mu def ci famille bi yal na am doom ju ko taxaw joo xam ne taxaw na côté taxaw yooyu mu taxawe nit ñi yal na ko yàlla may doom ju ko taxawe noonu waaw kenn merewu ko kenn waaw li mu waroon a def ci carrière am yëpp def na ko waaw li mu waroon def ci carrière am yëpp def na ko waaw ndax xam koo xam ne yaa ngi football nekk international sa xaalis doo ko contrôler sax dégg nga ay xarit ak ay ay ay ay mbokk ak ñëpp la jox bien dégg ñenn ñi mu bindal ñenn ñi mu jëndal leen ay gaalak lu nekk ay gaal lu ne jënd na ko jox xaritam dégg ay oto lu nekk jënd na ko jox ay xaritam tabaxal ñii ay kër defal leen lu ne teraanga bu ne boo gisee ñu koy fay lii tey lépp kenn mënu koo wax waaye jaajëf ñooñu nga xam ne reconnaître nañ tey ba defal ko loolu ñu di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax di wax ne ci kaw ci kanam lii ñu def tey yàlla bu mu nekk mujjantal buñ ko koy defal yal nañ ko ko yàgg a taxawee te yàlla fay leen macha allah yéen itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne kontaan nañ ci teewaay bi kontaan nañ bu baax a baax a baax. macha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jàppale sama gars yi dañ leen leen toogee jàppale leen ñu ci organisation bi s'il vous plaît. Ama Baldé Secondo bu mag la jërëjëf ñun te ñaawuloo sàmmante la nga mën a mën di ma taxaw ak nag Collé madame Dia euh, madame Diène euh, madame Faye ñu am ci mbégte lek nag taxaw di la tàllal mikro ñu xam sa mbaxaay xam tey jii nii mun nañ wax ni yàgg nga ñu toggal yu neex yeeg yooyu xam naa ni ba léegi mi ngi fi <laughs> dina tàllal micro. <laughs> waaw loo xam ci bis bi nag. Eh, asalaamaaleykum émotion bi rek moo a jàpp ah di leen remercier surtout yéen anciens yi parce que lépp yéen la parce leen yi démb la woon tey doog a ñëw reconnaissance boobu ba léegi ñu koy ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. di kontaan ci waa Calcio yi ko organisé tamit parce que jàpp ngeen si vétérans yi kenn kenn desul ginnaaw daan di remercier sama borom kër gàcce ngalaama kooku nit ku baax la kenn mënu koo fay dañ koy bàyyee ak yàlla ak yonent bi di ñaan yàlla njaboot gi màgg ba man ñu tenir bu baax a baax a baax lu mu am. doomu aadama yi la ko la ko bokkal parce que amul lu dul doomu aadama yi te ku bëgg partagé la uh-huh. ku bëgg mbokkam la ku bëgg ay famem la ku bëgg jàmbur la ku bëgg mbuur la ku bëgg Sénégal la kon nag ñi leen di jaajëfal bu baax a baax di wax ne basam bi yàlla nekk njiglaayam yàlla na si lu bari xewal yu bari bari topp yéen ngeen toog ba seen sët yi leen ko defal kontaan naa si yen bu baax a baax ma leen di jaajëfal jërëjëf jërëjëf aw buuru këram ma ñëw ci ñaareel bi ñu lay ziar di la bëggee di wax ni rek tey loo xam ci sa bisu borom kër bi mm. ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm sama nuyoo am na commencement mais amul terminaison waaw kontaan naa si bés bi franchement parce que il le mérite waaw il le mérite man def na dugg mais xam naa ne nit ku baax la. nit kese la. fii laa juddoo yaroo fi yàgg naa ko dégg. waaw mais li ma doon dégg ci moom gis naa lu ko raw ci moom. macha allah. waaw sargal bi nag. Uh-huh. les bonnes cœurs rek ñoo ko def. parce que lu waroon mën a yàgg am la mais xëj na yàlla moo koy doo a tudd tey. yàlla moom pare na. pare na ba pare. ñi ko organise uh-huh. am nañ mérite yéen ñi def déplacement tamit am ngeen mérite man moom maa ngi koy sant di ko gërëm di leen ñaanali yàlla yal na ànd bi yàgg yal na leen yàlla musal ci seytaane ak musiba balaa ci barke Seydina Mouhamed sangu-sang yi. yal na leen yàlla fay aas. yéen ñëpp samay grand ngeen. dëgg la loolu moom am waaw waaye te nëbb vidéo bi bu mu génn nag. Hmm? vidéo bi. vidéo bi dama koy nëbb. parce que wax naa ko caa sax mu ni ma ah. ëpp naa ëpp naa génne de na saal bi ëpp naa génne. te nga may bul àgg ci na saal bi riir yow it. xam nga Diène Faye daf ma waxoon ma andi kaset. waaw dama la rus moo tax andiwuma ko. war nañ jëm foofu bàyyi ma tagg ko foofu. parce que kii moom taxal ma tegu ko foofu mais kontaan nañ nag am nañ mbégte loolu kontaan nañ trop parce que Diène dafay nit ku baax wax dëgg yàlla boo xoolee tey jii nii lii am nii nga xam ne nit ku baax la. te tamit xaritam yi comme yi nga wax noonu ci xaritam yi tamit li ñuy def lu rafet la reconnaissance dafa am solo parce que loolu valeur la comme ni nga wax loolu les bons cœurs nit ku nit ku am xol bu rafet rek moo mën a def waaw moo ko mën kon loolu nag dañuy ñaan yàlla sunu borom rek euh, maanaam yàlla teg leen loxo rek ñu jëm kanam rek di ñaan nag ñoom ñoo xam li ñu bëgg xale yooyu ko def noonu

diko defal suñu xarit bi yalla fay len loolu rek lañ ñoon parce que suñu borom rek lañ mëna fay kon contane nañ ci yeen ñep kenn gënu len yeen yeen euh, anciens internationaux yi and ak yéen fay kenn gënu len surtout yow as da nga baax dëgg bax da nga bax torop te kuy japp tëwa bàyyi gor rek moko man yalla na len yalla fay amin amin amin amin yalla na len yalla fay jërëjëf ko ñu bàyyi la nga dégg ci gan yi rek jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw waaw man nag nu may liggéey di. bu may liggéey dañuy liggéey tamit di. bu ma kay ne. léegi foo mu dañ ñu xam ñu gis ko. waaw xool da ngeen di ñëwee ne. affaire bi waaw. non non mais lii dañ ko war a dindi. waaw waaw waaw dañ koy dindi dañ koy dindi. waaw dafa am tere. waaw waay. ah dafa garaaw de affaire bi kaamin la de ku ko wax indi ma tëye waaw rek jàpp na ko wala boo dugalee rek du ñu am dara indi indi waaw boobu ah gaa yaa ngi lay gaa yaa ngi lay kii nag wax nañ affaire ci yoon wi nag kaamil lañ la doon def mooy jàng waaw lii ku bi ko dalal dina koy retraité moom jàppal jàppal Latéral gauche. après ma jël ah grand caméra ñëwal ne ñëwal ne. jàppal jàppal waaw mi ngi noonu. waaw gis nga ko ah. waaw mi ngi noonu mooy cadeau bi nga xam ni moom la les anciens internationaux AIFS TES Mbour ah, moom lañ def jox cadeau Diène Faye loolu mu nekk lu rafet. waaw lu rafet waaw lu rafet waaw waaw. vraiment waa d'accord waa ñu ngi nii ñu ngekk ak euh, sunu sunu papa muy Momar Thioune waaw ñu gis tey jii nii ay fs bu Thiès Mbour ñëw indil cadeau Diène Faye tey nak ñu bëggoon nga sanni ci ay euh jërëjëf cadeau bi AFSS bu Sénégal nga xamé devoir regrouper tous les anciens internationaux par le canal du de la cellule de Thiès ndax cellule Thiès bi li tax mu am solo ki Diène fay ak Alburilakh ñom ay vice président Cheikh sek lañu ñu jiital leen ci Thiès mais ñi nak wa Calcio dañ ñun occasion. pour ñu defal Diène fay lii nga xamee ni vraiment ñun dañ ko bëggoon a def te amuñu bunt dañ ñoo tijjel bunt ba nag ñu war faa jaar te Calcio juumuñu de ndax football bu ñu ne Calcio da nga naan ñooñu dañoo am xel dañoo xarañ dañoo tactique. tactique mooy lan ci football moy ay pexé té italiens yi ku leen xam-xam ni calcio ay pexé la kon nak wa calcio bu mbour dañ leen di gërëm di len sant au nom de Cheikh Sek suñu président national au nom de Albrilah ak Diène Faye parce que occasion bi ñu may du occasion bu yomb lii nag yàlla na law nekk ay ati at te mu jig jéen jig ko jig njabootam ñu dund ko ay ati at ku ci nekk ci ñun am plus de cent ans yoo xamee ne doo am ordonnance allahuma salli ala sayyidina muhammadu sallim waa jërëjëf kontaan nañ am nañ mbégte waa am nañ mbégte Alboury tey jii sunu papa ji xam naa bu waxee sax ñu ci teg baat waaye day lu rëy da ngeen def geste boo xam ne tey jii nii geste bu noble la mën nañ wax ni lii maanaam euh,

di sargal suñu mbokk suñu xarit suñu nekkandoo suñu àndandoo suñu koo xamante ne ni on a pas on a vécu des moments heureux dans les terrain ba ñu koy ba am ay ay mbokkam yu koy dajaloo di ko sargal ñun foog naa ne cellule bu bu bu bu féete région boobu te te dépendre ci cellule nationale bu AEFS ci AEFS war na mën a jël ay initiative ñun nag lii. dañu inspiré wu ci après waxtaan ñu inspiré wu gis na xeyna na ji ak diine ji ci lañu ci lañu ci lañ judd ci la mag ci la génné aduna donc je pense que c'est un cadeau inspiré pour pour Diène ñu jox ko tableau bi ak kamilu arxuraan ak sijaada foog naa ne euh, mag mu nek lool moy ce ce terminus quoi donc boo ci tolé ñu ñu ñu sargalé lako vraiment ça doit

jën waaw jën waaw parce que gis nga tey euh, maanaam euh, maanaam geste bu rafet bi nga xam ni waaw ah, pour kii yi bu rafet bi nga xam ni ne la AIFS bu Thiès def mu geste bu noob tey ji nag ñu bëggoon nga sànni ci kàddu rek wax ni ban yëg-yëg nga ci am waaw euh, kii bi kontaan naa si man depuis commencement ba fin maa ngi si kontaan juste rawatina ñu jógee Thiès ba fii ñu jógee Dakar ñëpp ñëw ndax jàpp ndax AIFS moom lu ñu nekk yëpp yëfu si euh, góor la ñu nekk si jàmm lañ nekk ci salaam lañ nekk. groupe bi neex na am nañu baa boo xam ne lu ñu wax bu fekkee dañoo kii mu woo la ci suuf jubanti la donc loolu rek doy na lépp AFS doy na doy na lépp doy na exemple. parce que ñun réeruñu réeruñu woon te gën nañ ñoo jaaraloo ci train bi nga xam moom la ñuy jaar. lii nag du dul kontaan jour moom mun ko def am sa ci sa famille yëpp ñëw man sama ñi ma am mooy sama ñaari sœurs yi laa fi dese. te ñoom ñu ngi fi ñëw nañ présent donc kon. man kontaan naa ba waa mbuur mënu ma leen remercier xam nga mbuur moom mënu ma remercier sama soxna yi mënu ma leen remercier parce que euh, ñoom ñaar ñëw nañu ñu ngi waxtaan ñu ngi defandoo waa école mënu ma leen kii si Serigne mu ngi ne la toog mënu ma ko mënu ma ko remercier l'international mënu ma remercier Pa Momar Albouri Pa Laay sa Abdoulaye mu ngi nii ñëpp ñëpp présent donc man lu ma war rek mooy gën a góorgóorlu rek gën a téye fi ma téye woon li ma nekkoon ma jàpp ci rek gën cee nekk di remercier Cheikh Seck di remercier tout le monde ñi nga xam ne ñëw nañ euh, bi ñoon bis la indi fi bis baa ngi nele donc kon euh, ñun lépp lu ñu defoon gën ko war a mën a def di remercier vieux bi nga xamante ne Bokar Sy il a tout fait pour moi il est là moom képp kuy wax si moom nga war a commencer parce que moom moom moom nga war a jox sax micro moo ko gën a mérito di remercier grand Pablay Pablay Pablay Pablay moom war naa de moom France la nekk jéen mu ngi doon dimbali Pape Lay peut être mu ngi fii di remercier Pape Lay di dimbali kële nga xamante ne ma faal ma faal waat du may fubal kate waaw moom fa nekkoon kële yaa ngi dégg parce que aduna bi lu la nit defarul daal rek doo ko wax aduna nit warul warul warul euh, kii di remercier grand bi kii nga xamante ne euh, kii nii kii moom mooy euh, Omar Lay moom bu ma nekkee kate moom moo may moom moo yoroon. commande nga fu ma nekk ma wax ko. parce que vie bi loolu moo fi nekk. kii nii càmbu Korea maa ngi moom ñoo nekkandoo woon donc kontaan na daal si bés bi euh, sama waa vraiment je peux pas vous nan laa nan laa yem. voilà loolu maa ngi lay remercier sama waa waaw. léegi sëñ Saliou Dia entraîneur U17 équipe nationale du Sénégal maa ngi lay ziar. waaw maa ngi doon ziar As di nuyu ñi lay seetaan ñëpp. waaw ñu ngi am mbégte rek sa teewaay nga ma mën a wax ci Diène Faye. Diène defe naa li ci mën a wax bari na parce que ñun ñoo màggandoo fii ñoo doon génnoo ci terrain yi ba un certain moment mu jékki-jékki commencé éclore ñun on avait choisi les études. boo ma ko ne après c' une fierté pour nous nous koy gis ci haut niveau que ça soit stade boobu am nek na bi de dem douane ba équipe nationale nekk professionnel donc c'est que le bo xam musul changer changé ay xarit donc dafa jafe defe naa ci nit quelque boo xam ne la valeur yi mu amoon depuis très longtemps muy immunité muy aide muy solidarité loom la defal bo xolé xal ci sol bi weex yëpp mooy ñu noonu àndal bi mu nekkee xale donc ça veut dire c'est quelqu'un qui a gardé ses valeurs et loolu dafa am solo ci nit loolu moy caractéristique donc ko xam dafa baax Euh, gentil propre te boo xoolee man ak fi mu on a créé académie ici à Mbour Mbour excellence foot donc ça veut dire quelque part suñu ñu amoon ba léegi def nañ ko et puis c' est xam lu mu amoon daf koy yéene population Mbour moo tax vraiment on a créé cette académie pour aussi mën a jàppale Mbour profiter un peu son expérience pour mën a dimbali xale ñu am benn euh, expérience sur le plan footballistique. léegi bi lay ñaan kañ lañ kañ non non yo soo ma yo yow soo ma wooree soo ma wooree ma allah. allo wa, waaw maa ngi ko euh, doomu ndeyam Lamine Faye ki nga xam ne tey jii nii ku fai, Diène Faye na Lamine Faye ku ne Lamine Faye na Diène Faye mën nañu wax ni ñoom ñaar ñëpp kune nekk tuddee na sa morom doom Lamine maa ngi ziar. ziar grand as. Euh, bon dilen wah dalen jam. wa, paske nyun parce que euh, ñun suñu mun nañ cee wax bu ñuy wax fii ba suba du jeex quoi mënul jeex parce que yàlla dafa def d'abord ñu nekk ay mbokk jéen boo xoolee man benn côté si sama côté papa maam la ci man bon si côté si côté papaam mu nekk sama cousin waaw moo tax euh, ba pare ñu nekk ay xale yu ndaw di ànd si je me rappelle depuis bi ñuy am dix ans ba léegi wala moins de dix ans ba léegi ñooy ànd man moom. waaw bon euh, pour ma wax si moom vraiment dama si sawar daal loo ma laaj rek vraiment ma ma tontu la daal waaw. jaajëf waaw euh, Diène pratiquement mun naa wax ne Diène boppam rek la ma joxul waaw. Diène tudde na ma doom doom boo xam ne man maa ko tuddee sama bopp. dëgg la nekku fi mu nekk Arabie Saoudite. ne ma am naa doom demal ngeen ngénte ko ma dem ilimaan bi ne ma nu mu tudd ma ne ko tudde naa ko sama bopp bon maa ko sama bopp sama taaw bu góor moom laa ko tudde lu ne lu ne rek jéen defal na ma ko man sama waa kër dañ may xas ne ma mënoo jënd yëre ba tey parce que jéen moomu doon jëndal yëre depuis bi mu commencé liggéey ba tey lu mu jëndal boppam jëndal ma ko da doon jógee Arabie Saoudite ñëw yëkkati saagu yëre la may jox yàlla xam na ko lu mu sol dañ ko doon niroole man ak moom. moo tax pour wax si moom du yomb daal. dëgg la xam naa mais il faut être costaud nag que bis bi. du ñàkk nga wax parce que danga jekk ci pour wax ci Diène. waaw waaw mais xam nga Diène. bo comme ni ma la ko waxee léegi nii rek. li ma su may wax si moom du du doy daal. dëgg su may wax si moom du doy. Diène li mu def social si mbuur man li ma xam loo xam ne du ay mbokkam sax la ko jaaral jéen lu gën a bëri ma jox la benn exemple ay tabaski ay jamono ay tabaski da doon def chaque tabaski mu yónnee ma lu war a mot quatre cent mille wala cinq cent mille ma koy distribuer ay xaru tabaski ay cinquante mille cinquante mille cinquante mille si koñ bi ay pa te daf ma doon jox ay quatre tours rek la ma doon jox. deug la suma ma ñooñ mu ne ma joxal ñeneen ñu la neex. joxal ñeneen ñu la neex. ma jox ñeneen ñuma neex bu jexé ma ko jehna? na. waaw des bu amé ku des mu ne ma jox ko sa boss après na la jox te bu ma joxaatee may jox ñeme mu wax ne pour tabaski la ndax daf koy ëpp. waaw jëndal jëndal jën la rek. waaw jëndal jën la rek. waaw wala bo gisé nga xamni xol bi moy wax waaw parce que euh, ku ne Lamine Faye rek comme ni ko waxé won rek né jën Faye nit ku baax nit ku am kóllëre nit ku mën a jàpp xarit waaw loolu comme ni mu ko waxee loolu moom boo ko gisee nga xam ni wax dëgg yàlla nit ku baax rek mooy mooy def loolu jox nit ne la am demal demal demal tuddali ma sama sama doom nga dem ngénte tuddee ko sa bopp te amul coow jugul amul lenn jug kon am na loo xam ne yéen ñaar sunu borom def na ko seen diggante kon loolu lu rafet la waaw mais ba tey tamit boo gisee tey jii nii ay xaritam yi nga xam ne tey jii nii mooy ñi mu doon géel ak ñi nga xam ne moom la nekkaloon no Arabie Saoudite yoo xam ne football moo leen boole kon war nga xam ni dafa rafet parce que ñoom ñëpp ñu ngi si bésam bi tey voilà waaw waaw waaw loolu soo xoolee même yow xaw ma ndax seetlu ko wala déet bi ñu si kër ga fële presque internationaux yëpp jéen moo tax ma xam leen fu nekk fu internationaux nekk ñoo xam fu baloon daan ñoom Arabie Saoudite fu nekk yóbbu na ma présenté ma leen ay ñoom Victor Diagne ay ñoom euh, Alima ak ñoom ñëpp ñoom Modou Ndiaye boo gisee ma xam leen. c' est grâce à moo tax. fu nekk regroupement bu mu mos a dem yóbbu na ma fa. fu mu mos a dem si Sénégal yóbbu na ma fa. même ba mu nekkee Arabie Saoudite nee na ma bàyyi sa liggéey nga ñëw ñu dem Arabie Saoudite. man dinaa la wutal liggéey. waaw mais man maa hésité ma bañ. parce que nit duñ la jox lépp nga jël lépp. Diène ñu bëri ñu ngi wax naan moo yóbbu kii Europe moo yóbbu kii nangam nangam man la njëkk a ne ma kaañ dem ma yóbbu la Europe man maay jël sama xaalis teg. mais comme que moment boobu man j'étais dans l'armée. dëgg la amoon naa liggéey. Uh-huh. ma ne ko non garaawul bàyyil ma gérer. waaw mais taxaw na moo ma wutal passeport wutal ma lépp ñëw ne ma boo bëggee nga ñëw ma yóbbu la Europe. waaw moo tax li si nekk si bëri bon li si nekk dafa bëri. dafa bu am na loo xam ne nii xam nga rek. waaw ah, yëpp mënuñu ko wax quoi. waaw am na loo xam ne. dëgg jéen dafa doon ñëw. am ay mbokk am ñëpp. ñëw vacances di ñibbi. auto man la ko doon yëkëti denk mako ko waaw lu ma neex la ci def jeen jeen dafa doon ñëw vacances capital budget bi muy vacances man la koy denk dañuy and dem banque mu retirer xaaliss jël ci benn somme li si yëpp mu denk mako ko ne teel chaque jour man lay wax ne jox ma li ma jox yeen saa man ne ko joxuma la parce que da ngay yàq xaaliss bon jeen dal pour dire vrai dal ah. comme ni ko waxee rek la dagul jox ma waaw bopam rek la dagul jox ma quoi deug la contane nañ contane nañ ci témoignage def na ma ko quoi waaw waaw kontaan nañ ci témoignage boobu li mu wax moom wax dëgg yàlla daw na yaram waaw comme ni nga waxee rek noonu la bëree tamit ay xarit yoo xam ne jàppale na leen bañ dem bitim réew bëri na ci waaw du ñàkk sax am na ñi nga xam ne tey jii nii sax war naa leen jot ñoo xam ne tamit ay doomu ndeyam lañ ñoo xam ne tamit ñi ngi Europe muy ñoom mooy Malick Thiandoum waaw di di di Ibu euh, Pa Ibu waaw ñoom ñëpp waaw mi ngi mi ngi Angleterre xaw ma waaw waaw defe naa waaw mi ngi Angleterre moom it sax dinañ ko jot xam naa ni du ñàkk tamit dina def témoignage si Diène parce que xarit ci bokk na ci tamit ci xaritu jéen yi kontaan nañ trop kontaan nañ trop nak ci ci ci mbir mi wa ñu am ci mbekté nak wa comme ni ñu wax rek xam nga xam ni ñu ki ci rek nga def ci ben ben ben kàddu gu ndaw rek ben une minute rek wa une minute sax wa deug la limu wax yëpp deug la jeen mom lu gën wax ci mom rek doyul deug la man mom sama jour la deug la bokku ñu koñ man gàdd gaa dëkk nar la waaye sama jour lu ma seen depuis bi mu amee bi mu jëlee coupe cadet meilleur jour la nekk sama jour ba keroog bi mu nekk international kon mënuñoo wax lépp mais moom moo tax ba jusqu'à présent ma inclure wu groupe bi parce que ci loolu laa ko toppee ba tey fii ma nekk nii bokk ci association bi ñu nekk nii kon li ma koy ñaan mooy gudd fan ak wér rek maanaam def na lu nekk moom li mu war a def na ko ñun ñoo xamatul lu ñuy def moo tax ñu ñëw seet organiser lii pour def ko ndax rek rien que pour rendre ko hommage xabal ko ni ñun suñu xool seet na ci kon yàlla na ko yàlla may fan mu gudd ak wér mu dundee njabootam ba li mu bëgg mu am ko yàlla am na ko man na ko yàlla na ko def kontaan nañ ci ¡Gracias!